Assalamualaikum waalaikumsalam aduna assalamualaikum yen ñi sétane fu waay mën nekk ci aduna bi fekk nañ leen fa jox leen suñu nuyo ci seen biir émission Zap Série tay nak ñu dalal ndaanaan bo xamne kenn dotu ko présenter ci walum théâtre mu def djégo yu rëy ci walum théâtre koku du kenn ku dul Cheikh Mbacke Cheikh Mbacke nuyu naa la. ngi lay nuyu sama xarit xaritu artiste yi di la dalal jamm di la wax ni nga def baxna <laughs> merci. wa di contane nak lool di am mbégte ci émission bi nga xamni wax deug yalla émission bu mag la ngeen ñu ci sagal di ñu ci wane may ñu occasion ñu mëna remercier ci ñu fan jakarlo ak ñom ñi ngi gëreum suñu grand yi fi jotta jaar yépp donc di leen encourager di xam ni donc bu ñu yexé fi tay dañ leen koy remercier bu baaxa baaxa baax ma ngi lay nuyu di nuyu mbokk internet yépp fef sama fan ci nek ma ngi lay nuyu di la tatagal di la sargal di la wax ni alaykum wa rahmatullah Cheikh Mbacke ñu xamé la ci walum théâtre est ce que mën nga ñu wax lan mo la dugal ci théâtre lan mo la pousser ba nga def théâtre waaw loolu nag euh, moom boo ma ci laajee dinaa ci sawar parce que man au début dama menuisier laa woon donc mooy sama profession moom laa sax dama moom laa jàng ba qualifié mais dama amoon ay doomu ndey yoo xam dañu doon def théâtre ku ci mel ni Moussa Sène ku ci mel ni ab Abdoulaye Samb ku ci mel ni Tuuti Sarr ku ci mel ni Malick sekk sama grand ñooñu ñoo doon def théâtre mais samay doomu ndey loolu daawuñu tàqalikoo yàlla dogal ñoom ñu nekk ci biir ma nekk sama atelier mais bu ñu demee souvent dama daan dem ay répétition ak affaire yooyu noonu bu ñuy dem ñu gis sama talent ñu gis ni lu ñu répété man maa leen koy njëkk jàpp après maa leen di fàttali sax seen texte yeeg nu ñu ko war a defee ak affaire yooyu après ci lañu xam ni man am naa talent quoi donc li may def war naa mën a ñëw rejoindre groupe bi dañ maa jàpp sax yóbbu ma. donc kon suma yexé fi tay donc dama len koy santé parce que man mënoon xam lan mo nek ci ñom man quoi mais en fait ñom ak seen bët professionnel bi ñu yor xam nañu won nañ ni amna talent quoi. mën nañ la japp na ne théâtre dal dang ko dang da nga ko judduwaale daal talent bi dang nga ko judduwaale. est ce que judduwaale am na. <laughs> talent mom amna parce que talent ci la bok quoi amna ci di nga jang technique mais talent amna ci solo trop trop trop trop bo jangone technique bay de te amo talent bi mom donc mën nga baña mën nga baña sori quoi mën nga baña sori. est ce que Cheikh mbake mën nga ñox lolu ban année la won wa lolu muy 97 97 la won mi ngi won keur Samba won ma ngi koy nuyu bu baakha baakha baax parce que mi ngi dekkone CFA mbeddu bëy Medina Gunaas la nek CFA mbeddu bëy donc mu fekkoon fa sama grand bu baax bu ñu wax Leyti Fall moom it mu tété ma bëgg ma deug yalla maa ko gënaloon léppam Leyti daf ma bëgg. donc jàppale ma ba tey demoon naa sax ba noon doon numéro 2 donc mu fier ci nag waaw wax dëgg yàlla donc kon maa ngi ko ciy remercier bu baax di ci nuyu Père Samb woon di ñaan yàlla yàlla yàlla guddal fanam. ñu gis ne aussi joué nga ci pas mal de séries euh, nan nga gisee milieu cinéma bi. waaw milieu bi comme. ndax tey ji évolution yu par rapport théâtre bu njëkk ak théâtre léegi. Ah, bien sûr waaw waaw waaw loolu évolution amna bu mag a mag a techniquement amna artistiquement amna donc scénario yi développé nañ gis nañu histoire yi nga xamni ñing koy ñing koy ñing koy véhiculer gis nañu artiste yi nga profil yi nga xamni ñoy ñoy ñooy donc ñoy ñoy ñoy ñoy cadre personnage yi donc di ci dox dox bu am solo ñu ci wone ay message yu am solo souvent sénégalais yi du ñu seetaan. parce que léeg dañuy gis benn acte rek ñu ne non acte bi waru ko woon def lii nangam ak nangam gis nga scénario dafa am ay personnage personnage bu ci nekk dafa am gis nga bu bon amul woon baax du am valeur bu baax amul von bon du bon du am valeur comme comme bu ñàkk amuloon woon nangam ak loolu nag àdduna bi moo tëddee noonu foog nga wan ñi ñàkk wan ñi am wan ñi bon wan ñu baax mais jubloo ci lenn lu dul ñi bonoon baax jubloo ci len lu dul ñi am wara dimbali dimbali nit ñi donc ñun suñu IPS bo boo xol fofu foofu ñu jëm mais souvent nit ki da ngay tomber ci ben manam da ngay tomber ci ben acte rek nga ne non ñi li ñuy def du suñu ay valeur dañu bëgg a détourner alors que c'est pas ça. parce que en général dañ koy gis ci biir ki des fois quelques séries yo xam duma tuddu sen tour ñu naan dañuy dañuy perdre lo suñu valeur noo gisee non pour man dañu seetaanu en fait pour man ñu quoi parce que série buy commencé da koy top

don toroxal ni mom respecté wul ni nanga man mom fan la jëmoon lan la don def ak epi jeexi talam lan la loolu moy affaire yi quoi pour man donc boko sétanul nak doko mëna comprendre. mais est ce que gis nga né yow japp nga en tant que professionnel parce que professionnel la la mëna ja tuddé ndax yag nga ci milieu cinéma mais est ce que gis nga né série légui amna am na qualité qualité bi ci bi ci war est ce parce que gaay ku jog né ma ngi bind scénario ku jog né ma ngi def série est ce que qualité bi ñi xaar am na ci gis nga ko ci. ñun nak dañu am ñetti composants ba ñent loolu nag dañ koy jël parce que ñun ñooy feeñ dafa aspect technique am aspect écrit am aspect réalisation Nous ñun ay prestateur lañ dañuy ñëw rek Nous dañuy ñëw ñu Nous personnage bi lii la da Nous yaru Nous ligne de jeu donc gannaaw scénario bi gis ni profil war nañ ci participer baax na ci sunu carrière ñu ñu ñu participer mais dafa def yeneen aspect yoo xam ne du ñun mais technicien yi la mais comme ñun ñooy feeñ c'est normal que lépp dañ koy teg suñu. waaw ah, c'est vrai que parce que xam nga li ñu naan euh, yéen gannaaw ñi yéenay feeñ moom problème bi. chaque fois mais nag dafa dafa am ñu ñu composé parce que le réalisateur mooy mémoire film bi. parce que réalisateur bi mooy lépp lépp luy am ci film bi mooy ki taxaw suñu ginnaaw naa ñu action defal nii waxal nii kii lépp kooku la. mais nag li euh, wolof naan ñun ñoo weex donc parce que ñun ñooy feeñ <laughs> mais seen gars yi topp ci ginnaaw caméraman gi ñoom am nañ ci wàll. mais tamit nga gis ne est-ce que théâtre waruñu koo jàng parce que des fois di nga gis koo xam ne mu joué nga xool ko xam ne techniquement kii du du du loo xam ne mun na ko peut-être gars yi dañ ko def léegi dañ ko bëgg a def métier théâtre est-ce que yaakaaroon dañ ko war a jàng ba pare avant ñoo ñëw rek ñu teg leen devant le petit écran. si si loolu moo am loolu moo am war a jàng parce que tout est technique théâtre tout est technique. jooy te kenn te amulu la naqari c'est technique ree moo gën a jafe jooy ree ree ree bu naturel nii ñu xam ne ah yow ree nga ree boo xam ne naturel na moo gën a jafe nga toog ñu ne la reel aspect yooyu boo ko jàngul ba xam ko da ngay ridicule dangay dem ba dañ naan non mais kii daal kii daal nangam kii daal nangam kii daal nangam fekk amoo métier bi léegi nag loolu ñoom réalisateurs yi ak ñoom ñiy def casting am nañ ci part de responsabilité d'accord naa film kenn ku ci nekk mën na ko jouer mais ki nga xam ni moom moo am métier mi donc moom moo gën a yomb daal pour nga jouer ko mais nag n'empêche que bu la neexee mën nga cinéma moom bu la neexee mën nga romb jaaykatu jaaf ci mbedd mi nga woo ko mu daal di mais li artiste bi mën moom mi am métier techniquement. waaw du benn sax boo ko xoolee techniquement li ñu naan ki ko jàng ak ki ko jàngul du benn. tey boo doon joxee conseil parce que gis nañ ne tamit jeunes yu bëri ñi ngi bëgg a dugg ci wàllu théâtre rien que pour def buzz. Euh, ban conseil nga leen di jox waaw non buñ ci dugg pour feeñ parce que lii ñu tiim nii ku rey moo ku dee moo la rey nit defaroon na ci waaye nit yàqoo na fi parce que kilifa da lay déglu il suffit que nga wax benn wax rek am na ci ñoo xam ne suñ la xoolee rek xool bu neneen rek yàlla suñu borom def loolu donc lu mel noonu nag buñ la ko dee dëpp da ngay xam li ngay wax ndax juum dafa gaaw da ngay xam ni ngay waxee xam yan comportement ngay def parce que mën nga ci yàqu mën nga ci def benn affaire te loo ci def fii ba 2000 ñëw leen ñu ñëm image yaa ngi fi rawatina site internet yaa ngi fi youtube baa ngi fi fii ba nangam ak nangam buñ ne diw diw diw ñu ne moo yow de yaa fi defoon li te ëllëg dafa am bo génération par génération yow da ngay dem après sa image day des ka nga dee wala nga maquette wala nga def leneen mais ku ñun ñi ci nekk nag ñun ñëpp yàlla na yàlla rafetal suñu image méngoog li nga xam ne loolu la ñu jublu woon ci askan wi quoi parce que théâtre moom bégale la ak yee askan wi donc loolu nag kum tax a jóg je pense que war ngaa xam li ngay def bu baax a baax a baax. Cheikh Mbacké ba tey euh, ma lay laaj est-ce que mus nga am loo xam ne métti na la ci théâtre bi nga nekk dalee jouer théâtre ba léegi ci milieu bi est que mus nga ci dund loo xam ne heure boo toogee xalaat ko rek mu métti la. noonu non dëgg musul am dara benn loo xam ne dara kon daal yow théâtre daal mun nañu wax da bànneex doo nga ci dund. c'est-à-dire li ma loolu tuddeewu ma quoi. peut-être de répéter loolu choono choono bi la quoi li ngay dacc ci répétition li ngay jouer mais théâtre mo man bëgg na ko bëgg go xamni luma ci dal na ma koy def bànneex sincèrement bëgg na parce que musuma ci xex mu ci xulo musuma ci jàppante musuma ci nang donc bu mu ci jouer sax ba blessé ci fierté lay ne lay nekk ci man su ci jouer ba ba gañu ci wala lenen dal ma ci donc damay am fierté tin ci ne man li lima bëgg la doon def dama ci doon manam dama koy jaamo yalla théâtre man jubluwaay bi dama ci jaar jaamu ci yalla parce que dafa am ben jour ma dem tok quoi ñuy jouer corps bi bu mujj yàgg ben boy ne ma bu doon perse sax man koy nuyu mu ne ma yow de dama la yaguna wër parce que dafa am ben corps sama yaay fièvre fu ne ñu yobbu ko xaw ma yaayam la ma xaw ma tàntaan daal fu ne ñu yobbu ko ben corps ben acte nga def rek maire bi dafa tepp ba musul won mëna juk maire bi dafa tepp ba dafa juk tok mu ne ma jour boobu sunu waa kër yépp dañ la doon ñaanal mu ne ma waa kër gi ñëpp dañ après ma ma ni dënn sama yaram daw nag quoi ma ni xoolal loolu ci ay yiw donc kon man foofu laa naa ne ah tiens loolu naa am beneen trajectoire bu bokkut ak bu ma amee léegi man théâtre dama koy jaam waaw parce que gis nañ ne théâtre ñu bëri ñi ngi dem ba jàppee ko ne affaire de thérapie la parce que ñu bëri des fois dañuy feebar bu ñu seetaanee théâtre nga gis ñu évidemment loolu leer na théâtre day faj

ling koy defal da ngay bëgg mu yëg ko xam ko yaa ngi may dégg affaire bi dafa gën a sori sari affaire yi dañ ko war a commencer ci local yi dafa am ay xale yoo xam ne ñu ci local yi di di organiser ay spectacle ay festival yu ndaw ndawaan maire yi ci seen jëmmi bopp ñu war leen boo wooteel ay budget de culture nangami million te xale yooyu amu ci kenn koo xam ne di nga def sa programme wala nga def sa création benn maire jàppale la ci lenn waxantuma laa nag ministre de la culture ñun dañ ne ñu ëpp ci ñun dañ ne ministre de la culture ñu ngi ñu ngi koy wàcceel président de la république ñu ngi ñaan bu ko neexee na bañ a bokkati ci gouvernement. ah lu ban acte nga fi gis mu mu dawal artiste ñi ngi feebar di dee ñu heure bi waroon na fekk mais am na cité des enseignants am nangam am na nangam. mais jam ñaajo jee dañ mën nañu fay dagal cité di cité des artistes comédiens utal ñu fa ay ñu tabax ko. mais est-ce que que yéen a ngi koy kaas tamit. non mais dama ni ñun ci kaas lañ dëkk yaa ngi may dégg mais nag amuñu jotu ñun taxaw nga nangam li ñu dañ koy demee xarit ji mat ut suñu du mën a yor suñu njaboot. artistes ñi ngi ci wàññi li ñu war a de mais encadrement bi maanaam ñu ñu war a cadrer état moo war a moo war a cest à moo war a structurer lépp moo war a defar lépp am nañu arcos ARCOSER association des artistes comédiens du Sénégal foo dem ci Sénégal am na ci mais loolu organisation da koo mënta ñàkk. waaw gis nañ ne aussi bo yéen a ngi waa préparé benn festival festival à Guédiawaye te bu njëkk gisoon nañ ne festival benn festival moo amoon mooy bu Kaolack bi euh, loolu nu mu ñëwee nan idée boobu nan la ñëwee ak fond bi fan ngeen jëlee fond boo xam parce que ku nekk xam na ne organiser festival yombul. dëgg la de <laughs> waaw loolu moom dama ciy sawar bu baax parce que. dañu gis ni festival yi ñu daan am yëpp Kaolack la ñuy dem te ñun am nañ fi Guédiawaye am fi dakaar am fi Pikine ñu ne ñun nañu jëkk a jël initiative pour pourquoi pas ñu ñun Guédiawaye ñu jël initiative bi non seulement que wane ville de Guédiawaye li mu am donc woo nit ñi wan leen leneen lu bokkut ak li ñu leen daan wan festival bi nag metti na comme ni nga ko waxee parce que budget la laaj xam nga festival bu demee bu budget am 16 million xam nga loolu budget la ñoo ci jiitu nag parce que ñun ci suñu jëmmi bopp bàyyi ci say weewu tànk def nañ suñu ay cotisation def nañ suñuy pexe ba ñi ngi ci ñi ngi ci sollicité it maire yi fi nekk ñu ngi ci solicité Aline Sall parce que depuis sept ans bi mu toogee Guédiawaye ba léegi musta recevoir Arcos loolu doy na waar de. pour recevoir Arcos ci les réseaux sociaux la nag xam naa li may wax et puis mës naa ko ko wax nee naa ko mosoo recevoir Arcos te moom nangu na ni mosul recevoir Arcos. lu waral loolu. bind nañ fi ñu war a bindi xam nga maire bu toogee dafa am nu mu war a demee da ngay bind courrier déposé secrétariat secrétariat jox la yii maanaam courrier yi ñu mës a jënd yëpp décharge yi ñu mës a jox yëpp mu ngi ak ñun preuve yooyu mi ngi ñun amul benn maire mais nit ñi autorité yi ñoo bëggul ñoo fonkul culture. <laughs> Cheikh li ngaa doy na de te président di wote culture fu mu toll. ban année lañ ni woon dañuy def année année année culturelle. lan lañ ci def. laaj delloo naa. dama dama lañ ci def ban année lañ ne woon le président ne def ne def naa année bi année culturelle amul te amul benn ndaje booy dem amul benn ndaje booy dem laa la wax te duñ jiital artiste amul. mais est-ce que problème bi tamit euh, Cheikh Mbacké bu ñu waxantee dëgg rek est-ce que du yéen ci seen biir parce que déjà yéen seen biir jubóowu leen sax nag. non am na ci. Euh, non duma wax euh, duma ne ange duma ange en général la nagn ko wax te dé rek artiste comédien yi jubóowuñu peut-être xeyna hypocrisie mi ngi sen biir ñi ngi reet xamna naa li may wax bu baax duma la wax ben source nak duma mi ngi sen biir est-ce que dul ñak a bobu boobu tay parce que bu ngeen nekkoon ben ngeen jubóo yeen ñep nekk ben est-ce que li ngeen li ngeen bëgg du ngeen ko soxna ci ben lañ nekk ben motax ñu taxawal arco national yaa ngi may dégg. mais ci biir arc national am na ay damante tànk nag Cheikh Mbacké. non loolu même seen bii am na ay demante tànk même seen lii ngi loolu àdduna la ñaar ñu bokk ndey ak baay kër kilifa toog ci kër gi ñaari mag ak rakk dañuy xuloo ko xeex loolu àdduna la mais nag organisation am na yow mën nga nekk sa kër xuloog sa mag boo bokkal ndey ak baay mën nga nekk si xuloo sa mag boo bokkal baay mais après da ngeen di jubóowaat parce que da ngeen a bokk lu ngeen mënti séddoo da ngeen leen bàyyante. bo demee kees amna arcos ñanga ca artiste yeb deug kees yëpp arcos lañ bok da fay amna xam nga des fois sénégalais luñ tuddé tuddee ak ñaka a da ngay gis ben Cheikh mbake amatul mu ngi nekk ci ay business bopam yo xamni mënul amatul dina tok 6 mois yo xam du mëna dem association ba mais day déggo gaay da leen di wax fi la tollu dama nekk ci ay affaire légui nag buñ ñu la gisatul rek dañ nan non bayina na ñi ñii affaire yoyu ñun dañoo soppante bëggante respectante xam nga lutax yam Cheikh ya Kamu ko wax de. xam nga lutax dama lay wax xam nga lutax ñun kenn mënul baré sa morom parce que li def aduna dafa am rak, am dom am papa am yumbañ am jabat. te kenn ku ci nekk bokkook sa morom motax kenn mënu ci xañ sa morom dara bay koy iñane man gomul ol man Cheikh Mbacke Niass lima gëm moy xamna ñun ñepp bëggante leneen li ci dess nak mbiri aduna ak yefi doomu parce que sallallahu alayhi wa sax amu ko yàlla mi ñu bind amul loolu amul majorité ñii dañoo ñii dañoo kii ñii ñëpp ñu ko quoi ñii dañoo def li ñii dañ def lii donc pour man loolu la ko Cheikh Mbacké ñi ngi gis ne ñi ngi jëm ci waajalu koor gi ñu xamee la aussi ci lu bari ci Abou Bilal euh, est-ce que envisagé ngeen indi ren leneen lu bees loo xam ne dina frappé gars yi. mais ça tombe loolu nga fekk ñu def nii leneen la ñu indi. mu ngi nii xam nga yaa ngi gis gaa yi di ubbi bunt bi di la déranger tout maa ngi waaj a dem ni plateau tournage leneen la ñu indi lu bees lu gën a original lu gën a kii mais ñun suñuy sketch toujours dafa am njàngale dafa am njàngale du defuñu sketch rek dañuy wax nit ñi nii la ñu war a comporté woo ci koor nii la ñu war a comporté woo sax bu dul weeru koor quoi donc kon nañ ñu xaar ak beneen affaire bu bees yeneen profil yu beex yeneen personnage yu bees sax yoo xam ni li ma incarné fee leneen lay incarné lu bokkut ak li ñuy. kon daal bu ñëwee dina toj Sénégal daal. incha allah nañu ñëpp xaar ñu ngi ci affaire yi ci kàttanu yàlla. Euh, ba tey balaa ñoo tëj ñu dinañ la laaj parce que gis nañ ne géejewaay Cheikh Mbacke dafa am base macha allah jigéenu géejewaay dañoo bëgg Cheikh Mbacke macha allah lan. waaw bari trop sax xam li tax ma laaj la ko xam naa ko koo wax jigéenu géejewaay dañu fonk Cheikh Mbacke lan moo waral force boobu. waaw ñooñu nag aw ma seen fay. deug yalla awma sen fay de jigen ñi ñi may waa arkos ak ñi nga xamni sax bokkuñu arkos aw ma seen fay yalla defal na ma géejawaay way lo xamni dañu ma rus mag ñi sax dañu ma rus waana yoy am géejawaay way suma ñëwé taxaw di nga bëgg def dara sax do ko def lolu nak du man peut-être yàlla mo mo mo mo, mo dara jaalee lolu quoi maa ngi ko ci sante bax mais ñoom itam ma ngi leen di sante parce que ñoom ñoo baax ñoom ñoo am yëg ci nit ñoom ñoo am respect ci nit moom laa lay wax sànq naan la ñun dañoo bëggante man géejawaay aw ma fa sens interdit amul kuy xewle ma dem te doo ma jox sama cër amul kuy xewle ma dem te dooma ma tatakal te nit ñi ma koy defee noonu laa ñu ko noonu lañ koy defelee ñeneen ak ñeneen man noonu laa koy defee donc ñu ngi nuyu géejawaay gépp képp koo xam ne doomu géejawaay la ñu ngi ñu ngi lay nuyu képp koo xam ne yaa ngi xeex pour géejawaay ñu ngi lay nuyu di la sargal di la wan ni ñun itam ñu ngi ci weneen wàll wi pour wane géejawaay ci fulla pour wane géejawaay ci fayda pour wane géejawaay ci taarix ak position bu géejawaay am ci ay cadre ci ay borom xam-xam ci ay kilifa diine ci ay leneen ak leneen loolu lépp inshallah dinañ ko wone ndox nit ñi am beneen gis-gis bu bes ci géej ay bandi ñu fa de ay nit ñu baax fa dekk <laughs> ñi ngi leen koy jiiñ daal <laughs> ah, kon mun naa ne egsi nañ ci suñu capandaw émission ma bàyyi la nga joxe sa mot de la fin waaw alhamdulilah comme yàlla may nañu ñu tàmbale woon ko ci bismillah jeexal ko maa nga lay remercier yow parce que nit ku baax nga ci opportunité bi ngay may artiste parce que artiste amna moment bo xamni bu fa tollo da fay laaj mu sol menen mbub parce que nit ñi temps fa cher té amna ci ño xamne buñ la gissé rek dañuy bayyi lepp luñ doon def taxaw di la sétane loy wax amna ci ño xamni dañ lay topando noy défé amna ci ño xamni dañ lay solliciter di la encourager di la ñaanal ñu mënu leen fay ñi ngi gërëm ñëpp di tatagal ñëpp yalla na leen yalla fay yow métier mi nga nek. ñun nga ñun ngay attaquer bu déwéné fenen benen benen galon nga yor c'est que ñun suñu métier mi la yalla barkel comme nag yow song nga ji bàyyil ba déwén. Ah, kon jeex na. <laughs> incha allah mbokk internet yi kon fii la ñuy yem ak yéen ci seen émission Zap Série jox bu très prochainement mais laataa loolu nag xalifa da jël sama robb waaw. waa gis nga Cheikh Mbacke loo ci sama rob Anta sama tailleur boobu di ko sant di ko gërëm jox leen rendez très prochainement ci seen beneen numéro Zap Série jaa ngeen jëf.